Conseil sénégalais des chargeurs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 ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett ci ñoo xam ne li ñu leen jàppe ci lu jëm ci mbirum drogue la am na téeméer ak juróom fukk ñoo xam ne mbirum rey nit ak ñoo xam ne dañoo siif ay nit maanaam daal leen di yàkkataana am na ci lu toll ci juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ci ay kilo yàmba yoo xam ne waa police teg nañu ko loxo ci opération yi nga xam ne doon nañu ko def ci weeru décembre yéenekaay gi di enquête xëy di ñu xamal la ñu écurie Falaye Baldé li leen dal neexul ndax am na ñaari membre écurie yi ñoo xam ne teg nañu leen loxo ci lu jëm ci mbirum trafic drogue te soo moytuwulee lu toll ci fukki ati kaso danañu ko tëdd yéen i kaay gii di laas xëy sa conseil des ministres bi nga xam ne démb doon nañu ko amala njiitu réew mi di président Macky Sall bi mu janoo ak gouvernement bi wax ne leen lu leer nee na leen coronavirus bi jamono ji gis nañ ne cas importé yi ma ngi ñëwaat ci réew mi nee na Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Diouf Sarr ak Alioune Sarr ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum santé gi ak wàllum kaaraange réew mi ak wàllu dem dikk bi si jaww ji na leen jël seeni matukaay ci frontières yi ngeen xulli seeni bët ngir cas importé yi daal dakk yéen a kaay ko di Sud Quotidien ak Rewmi Quotidien xëy di ñoo nettali li nga xam ne moo xew ni ki démb ci assemblée nationale ci bureau bi nga xam ne doon nañu ko yeesal yéen a kaay gi nee na Abdoul Mbow daan nay wuutu ki nga xam ne mooy Moustapha Cissé Lo kon mën nañoo jàpp ne gone Cees ki moo nekk premier vice président assemblée nationale Moustapha Niass ni ki démb yëkkati na ay kàddu nee na seenub liggéey kenn du leen ko jàngal te nag assemblée nationale munu fee wuutu cour suprême munu fee wuutu conseil constitutionnel munu fee wuutu gouvernement bi assemblée nationale dafa am lu war a def te li a def lépp dina ko def Moustapha Cissé Lo mi nga xam ne Abdoul Mbaw daan na koy wuto moom nag bi ñu ko laajee la mu xam le nee na jamono ji wàllum politique te lu ko lenn kese rek dong la tal maanaam muy wàllug wér gi yaramam ndax toog na ay weer yu bari yoo xam ne wàllum wér gi yaramam dafa daal di gëllu góose ñu laaj ko digganteem ak Macky Sall nee na ci màggalug Tuubaa gi Macky Sall yónnee na ndaw ma ngir mu ñëw daal di may xool awma benn jafe-jafe ak Macky Sall waaye ay jege ñaaleem laa amal ay jafe-jafe yéen a gii di évidence ñu fekk fa Serigne Abdou Mbacké Daaru musiba ak mbelengaan député bi di Aline Dumburu Sow mi nga xam ne moo fi yëkkati woon kàddu yu garaaw yi Serigne Abdou Mbacke nee na kàddu yi nga xam ne Aline Dumburu Sow yëkkati na ko ba politique di politique ba sunu yàlla jonn tey musta dégg kàddu yu garaawee nii waaye nag li nga xam ne moo si gën garaaw mooy noppi gi nga xam ne Macky Sall noppi na ko ci mbir mi ak ba Bassirou Gueye mi nga xam ne maanaam mooy procureur te lii nag lenn kese rek la mën a jur bu ëllëgee yeneen kàddu la ñeneen di yëkkati te loolee mën naa andi ak salfaañoo ci réew mi yéen gii di las xëy si jafe yi nga xamante ni jigéen ñi dund ci kaw gi ñoo ngi koy amee rawatina ci lu jëm ci wàllum suufa ndax bëri na ay jigéen ñoo xam ne dañuy bëgg a bay bëgg liggéey te kenn joxu leen suuf suuf si nga xam ne moom la ñuy béyee sax dañu koy luyee yéen kaay gi ñu fekk fa nag Adja Ndiou Mbaye ci laas yéen kaay moom mi nga xam ne moo jiite mbootaay gi ëmb femme yi nekk ci kaw gi wax na jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy dund tey ji la journée internationale femme rurale Sud Quotidien ñu fekk fa général Mamadou Seck nee na nag li nga xam ne moo xew ca terme sud dox diggante ñoo xam ne ci armée bi la ñu nekkoon bu kenn politiser ndax ci dugalee wàllum politique mën naa gën a doy waar yéen a kaay gi di réew mi ko di jen ci xalim ak Assane Samb nee na bu ñu waxantee dëgg Macky Sall jamono ji maanaam moo créé Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko haut fonctionnaire la woon Macky Sall jële ko fa ba mu ko fa jëlee la Sénégalais yu bare bari am cofeel ci Ousmane Sonko comme ni nga xam ne moom la Abdoulaye Wade créé woon Macky Sall noonee la Macky Sall di créé Ousmane Sonko jamono ji Macky Sall ak ñi mu àndal bu mag ci Ousmane Sonko ndax ñoom la ñuy song te loolee nag la muy rivalité bu ngandee diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall te sax Ousmane Sonko njiitul Pastef bu ñu waxantee dëgg tax nañu fàtte Abdoulaye Wade Idrissa Seck Malick Gakou ak Khalifa Sall am na ñu bari ci opposition bi mën nañu leen jàppe ñoo xam ne sax dañoo démissionné ndax dafa mel ni dañoo toog di seetaan Cheikh Issa Sall mi nga xam ne moom la ñu wax ne témoin la ci audience bi Ousmane Sonko bëggoon digganteem ak Macky Sall moom magistrat bi yëkkate na ay kàddu nee na Ousmane Sonko lu mu leen wax lu dul ñu bàyyi tey bu njaay du dëgg a ñu Abdourahmane Diouf mi nga xam ne moo nekkoon directeur exécutif club des investisseurs du Sénégal daan nay tekki dañu ko dàq en tout cas laaj yi bëri lool la yéen a gi ne nag club des investisseurs bëri na ñoo xam ne daan nañu fay jugee yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy séq waxtaan wu yaatu ak Cheikh Kanté ministre bi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum saytu plan Sénégal émergent wax na njariñ li nga xam ne numérique daan na koy am rawatina ci activité mondiale nee na ci déndu Afrique téeméer boo jël fanweer yi rek ñoo am accès si internet wax na covid 19 bi daan nay dëggal ne internet mën naa soppi Afrique première priorité yu plan Sénégal émergent numérique la kaddu Cheikh Kanta la ma ngi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien yéen a kaay gii di sunu làmb ñu xëy fekk fa Gaston Mbengue yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Giri Bordeaux nee na Giri Bordeaux dama ko jox sama xaalisa ngir mu bëree ak Balla Gaye numéro 2 ba mu dawee deuxième la nga xam ne moom laa ko jotoon a jox dama ko war a delloo stade yéen a kaay xëy di ñu xamalal ñu équipe nationale bu Sénégal jamono ji am na ñeent ñoo xam ne mënutuñ see